tey dañu bëggoon waxtaan si sama ak sama mbokk jigéen ñi ci benn phénomène boo xamante ni yàgg na am Sénégal maanaam saay bu élection jotee dañoo seet ni bu fekkente ni dafa am benn meeting benn rencontre politique bu am ñun jigéen ñi ñoo fay ëpp su fekkee rencontre ba mën nga compter cent personnes quatre-vingt yëpp ay jigéen la ñuy nekk ñu jox ñu ay vax wala ay xartum wala ay voile tegal ñu ci transport ak benn sandwich ni ñu tey am na mitin ñu bàyyi lañ doon def yépp tegu ci yoon ba yendu fa ba ngoon yuuxu tàccu way te duñu xam sax programme ba nga xamante ne mitin ba moom lay def duñ ca jéem a xam dara parti politique wala mouvement ba ñu àndal programme am buñ ñu mënuñu ci wax benn ligne jéemuñu ci comprendre dara dara dara dara li ma ci gën a neex nag mooy saay bu ñuy waxee dañ naan diw de moo ëpp mbooloo jigéen ñi fa lañ ëppee ndax ñun jigéen ñi dañoo war a nekk ay euh, nit ñoo xamante ni dañ leen di jël rek comme ay mala di leen euh, utiliser bu élection passé ñu teg leen fële su élection yi passe nga dégg ñu naan fii ngeen ñëwoon dig ñu ay financement te gisaguñ ko et pourtant bu élection ñëwaate même chose la ñuy defaraat dañuy ñëwaat su ñun ñu rempliraatal leen seen i kaar rempliral leen seen i meeting remplir leen seen caravane ak seeni ndaje bu ñu paree si ñun pare nañ ci ñun ma bëgg nag ñaan sama mbokk jigéen ñi di leen ñaax di leen wan ni góor ñi ñuy defloo loolu ñoom duñ ko defloo seen i moroom góor benn góor du nangu ñu koy jëndal vax di kosolal wala xartum di kosolal muy dem ay ndaje góor ñi à chaque fois bu événement jotee ñoom ñi ngi seen liggéey ñun ñu bàyyi lañ doon def yëpp tëj suñu kër tëj suñu suñuy doom bàyyi suñuy jëkkër ca biir kër ga bàyyi suñuy njël ca biir kër ga duñ tal lekk duñ tal togg duñ tal fóot duñ doon tal bale duñ tal raxas duñ tal dara topp ay borom parti politique dëgg la mën nga politique politique baax na lool ndax politique mooy laar de gérer la cité ñëpp d'accord nañ ci waaye ñu nangootu warootuñu nangu niñ koy doxalee Sénégal ñun jigéen ñi am nañ ay idée am nañ ay idéologie am nañu xam-xam ndax bëri na ay jigéen ñu fi jàng bëri na ay jigéen ñoo xamante ne domaine ba ñu nekk macha allah donc dama bëgg nag sama mbokk jigéen ñi di leen ñaax di ñaax sama bopp nañu bàyyi way yi fecc yi am nañu ay idéologie ku ñu soxla nañ ñu déglu ci suñu xel ak suñu xalaat képp koo xamante ni suñu xel ak suñu xalaat yittewu la soxla woo ko ñu ñu teg la fële képp koo xamante ne nag bëgg nga déglu suñuy xel la suñu xel ak suñu xalaat boo ñëwee ñun dinañ waxtaan ak yow dinañ la dalal ndax kat bu ñu fàtte ne jigéen mooy yaay bu ñu fàtte jigéen moo jur du ñu jigéen mooy mooy mooy mooy mooy mooy nàmpal du ñu fàtte jigéen moo nekk ci biir kër gi te ki nekk ci kër gi nekk ci koñ bi moo mën a xam problème yi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi ñoo nekk ci koñ bi donc képp ku ñu soxla soxla suñu xalaat mën nañu waxtaan ak yow mën nañoo jox suñu xalaat waaye bu kenn nangooti ñu yeb la ci ay kaar yeb la ci ay oto ay njaganjaay ay yu ma xamul jox la ay xartuma ki vax nga mel ni ku rafle ñëpp ndiroole mel ni ñu rafle jox la ay 2000 francs ak benn sandwich mel ni ku dul lekk nga topp leen loolu daal dama si ñaax sama mbokku jigéen ñi di leen ñaan ku nekk ci liggéey ba nga nekk na la sa liggéey boobu gënal 2000 francs ya ngay gañ dëgg la nag Sénégal métti na ndaxte ku xëy suba ba ngoon toog defoo dara ñu la joxee 2000 da ngay jël da ngay jël ndax liggéeyoo ko yoo bu buñ la joxee 2000 c'est normal que nga jël 2000 boobu waaye ñu ko def une fin en war ñu ko def métier mobilisation warul nekk métier conviction la war a nekk idéologie wala war a nekk képp kuy dem sa meeting waroo xaar ñu jox la mille francs c'est parce que yow borom parti boobu ngay demal xëy na am na idéologie am na programme bu mu la wax mu doy la nga dem di ko déglu waaye déplacé wu ngir 2000 francs boo demee doo sax déglu micro ngay euh, euh, micro ba borom bu ko war yore di wax doo xam sax lu mu wax mën nga faa toog ba mitin ba jeex boo ñibbisee buñ la nee waa ji lan la doon wax dangaa xaw ma ko ñun nañu war a nekkaat ay ay ay doomu aadama du ñu ay mala ay doomu aadama lañ te doomu aadama dafa am xel philosophe ba dafa ni woon la raison est la chose la mieux partage maanaam xel ñëpp ko ñëpp la ko yàlla jox comme que ñun jigéen am nañ xel nag dañoo war a utiliser suñu xel yooyu en bon escient waratuñu nangu rek fëkk duñu yóbbu ñu mel ni xob fu ngelaw li ñëw yóbbuñu fa damay ñaan daal sama mbokk jigéen ñi loolu ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax euh, dama koy ñaan sama mbokk jigéen di ko ñaanaat aussi sama bopp li may wax sama bopp laa commencé nañ leen jéem a xool rafetal encore suñu doxin rafetalaat suñu taxawaay ci cité bi ndax lii Sénégal cité la te ñun ñëpp a ko bokk xelu jigéen rafet na nañ ko utiliser xelu góor rafet na nañ ko utiliser waaye bu ñu jàppee suñu bopp comme ay nit ñoo xamante ne amuñu xel ndax euh, loolu aussi baaxul am nañ xel am nañ xalaat nañ ko utiliser si pour jariñ Sénégal maa ngi leen di remercier